jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne fu champion yi nekk dinañ leen fekk ci seen i ruq loqati leen indi leen ci wasaare làmb ndax àdduna dafa nekk foo xamante ni fi mu toll ni champion yi ñu doon gis ci làmb yëpp buñ dugg see mu neex buñ bëree mu neex buñ dugg see rek doo laajte ana mbër mi maa ngi ko mujjee gis ci combat bi nga xamante ni mooy caatu yaraax ak serpent lañ daje woon stade ma gis ko macha allah waxoon naa ko dinaa la bett dinaa la fekk fi ngay liggéeyee seet si la ñu waxtaan ci lépp loo xamante ni dafa yokk làmb waaye waxtaan ci lépp loo xamante ni fan la nekk ci làmb lan moo waral gëj a gise bi tey caatu euh, boo yaraax laa dalal ngir ñu waxtaan boo yaraax maa lay si. waaw Baye Jëli ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di naan bi ñu sant yàlla julli si yonente bi di gërëm suñu ay wayjur di sant suñu ay mbokk aussi di sant képp koo xamante ni si rek day bëggee Boy Yaraax ñu lay sant di la gërëm xam nga di rafetlu aussi sa déplacement quoi vraiment lii dafa rëy ci man surtout fi ma fekk nii sama fièvre fekk ma fi may liggéey muy Leclerc Dakar dem dikk fa laa nekk di fi dàq sama wërsëg xam nga man dama contre mbër yi naan lamb rek laa yaakaar quoi xam nga man dama yàgg ñafe man dama am ay dama dama métier damay bëre en même temps. su ma xëyee damay liggéey su ma wàccee nekk samay entraînement di sant ñëpp nag di sant waa Yaraax surtout di sant samay mbooxu di sant ñëpp sama gaay yi ñu may nekkal fii di bëggee ñëpp ah, di sant ñëpp kontaan ci lii waaw. waaw ñu ñëw fekk la tey nga nga nekk ci ni ngay liggéeyee euh, maa ngi la fekk bis bi taxaw clients ay ku yéeg lan ngay wax ak ñoom. waaw fii xam rek dafa am ay règlement déjà boo ñëwee liñ lay njëkk wax moom mooy que ni des fois di nga gis kuy jënd kaasu café sax dugal ko ci ka ci kaar bi wala ci njaga njaay yeeg tataay yooyu amul fii fii boo fi ñëwee boo yoree mbuusu ndox sax doo ko dugalaale parce que nit mën na sol yëreem bu rafet nga bënn mbuusu ndox bu fi dërëm tooyal ko du xam lan la kaasu kafe noonu nga tooyal ko dañuy bañ kafe dugg ci kaar bi mat laa gaz ndugg ay yooyu yëpp dañ koy bañ te booy balaa ngay dugg man bu ñu taxee dama leen positionné defar leen bi ñu defar rang bi xam leen ñoom ñëpp nañ takk seen ay masque xam nga ma may leen ku nekk gel ñu yëg dem waaw. mais ci job bi doo ci am benn jafe-jafe des fois ak client yi. waa dama ko ci am nag dama ci am ay jafe-jafe parce que fii moom xam nga mbooloo moo fi daje àdduna fiy daje ku ci nekk nag ak sa esprit. fii poñe nañ ma fii nit poñe na ma fi koo xam ne bu ma ko xoolee sa xool bu yegg mu faatu mu tiim ma saaga ma barki sëñ Babacar si mu tiim ma saaga ma ay nday ma bàyyi ko mu poñe wax lu ko neex ma ne ko après bon nice quoi garaawul damay xam ne rek bon man maa bëgg te dafa am loo xamante ni si boo nekkee ci yoon yu bari da nga koy moytu lu matul mbuus warul mën a yàq mbuus pour man quoi moo tax yu bari damay fenêtre rek mu jàll quoi waaw. parce que ci ngay liggéey bee fois du ñàkk nga ci am ay jànqal nga ciy jànkonte ay pàq-pàq ak yu demee noonu waaye lépp dangay xam ne liggéey bee ko laaj. waaw waaw da ngay xam ne liggéey bi la rek ay heure moo ñu boole rek. heure la rek parce que bu ñu yaakaar naa ne bu ñu ma fekkul fi may liggéeyee duñ ma wax yenn yi te xam nga boo nekkee foo xam te ni si ñëpp a fay daje esprit yi yamuñu xel yamuñu ku ci nekk ak ni ngay ñëwee da fi gis koo xam day ñëw da nga ko naan digal ci rang bi sax ganeen mu indi beneen parce que da nga ciy comprendre rek parce que métier la boo xam dañ koo jàng te bu ñu nii rek di ko def dañu def formation am suñu ay diplôme garde rapproché man macha allah dama def yooyu ba pare nekkaat menuiserie aluminium di fixe ay écran plat lu ne ma nekk ci parce que góor moom yaakaar naa warul fixé ci benn affaire rek ne moom laa yaakaar man sama philosophie loolu la damay nekk ci ay ruxu fu xaw a dëgër ma dem xool feneen man sama affaire noonu la te du ma yàqal dara ci sama làmb aussi quoi waaw. Euh, ñu dellu si waat tuuti ci làmb boo yaraax euh, parce que dañ la daan gis ci làmb ñu jékki-jékki gisatuñ la euh, te champion nga ci làmb mën nga maa wax ban année nga dugg ci làmb. waaw man dama teel a bëri parce que man boo xoolee maa ngi juddu presque quatre-vingt-dix laa juddoo dama teel a bëre teela a fooye làmb di ànd ak sunu ay grand depuis 2004 2004 laa dugg ci làmb di entraîner di entraîner ba yegg sama bopp sama benn grand ndeysaan sama coach maa ngi koy nuyu de passage di nuyu sama waa écurie bu baax Aliou Sarr moomu njëkk yóbbu làmb Mbapat Dalifor moo moomu njëkk yóbbu Mbapat xam nga boobu ndeysaan di fàllu dama koy ñaanal parce que fàllu man mënu ma ko fay. Fallou dafa def ci man lu bëri nekk sama rax nekk nekk sama lépp maag moom tukki moo ñu taxale ñoo doon bokk benn lal. tëdd maag moom dara ñoo bokk di bokk benn lal bu ñuy tëdd sama lépp moo ko yoroon tukki rek moo ñu taxale lu mënul ñàkk la mais dama koy ñaanal fa mu ne yàlla na ko yàlla defal jàmm ma duggul ci làmb 2004 yàlla dogal yàlla dogal may bëree bi bëre ay mbapat parce boo xoolee man Adrien Senghor laa yaroo ak terrain gi. souvent chaque samedi dimanche fa la daan takk sama ngemb fàllu loolu yëpp fàlloo ko def ci man nag fàllu ak sama waa écurie samay coach Père Ngouda Sarr Souleymane Diaw Mama Saw ak sama waa écurie yëpp di nuyu sama mbokku mbër yëpp Moussa Ndoye Lo Show mbër yëpp ah, mbër yëpp mënu ma lim maa ngi gërëm waa écurie bi di leen gërëm parce que tey ji li boo yarax nekk ñoom ñoo ko def tey dañ may ndamoo di ma tiitaroo waaw. nga nga ñaata combat arène. waaw bëre na set combat arène. sept combats waaw menum dijje moo ma ci daan ak Mandela ñoom ñoo daan bu Mor Fadam Mandela ak dijje ñoom ñoo ma daan. waaw parce que xam nga làmb. man kan ak kan ñëw ba pare. <laughs> man daan naa booy puy bu Bawol mbooloo daan booy jéey Ablaye puy bu mbaaw waaw ak Cheikh Kane waaw donc Papa Kane bari na tey jii ñoo xamante ni si sax man yaakaar naa chance bi ma am sax ci mbapat amaguma ko ci arène ndax li ma bëree mbapat bëree guma ko arène xam ma combat mbapat combat arène dafa yomb te ñun dañu am habitude di génn ci àll bi di bëre ñun chaque samedi dimanche wala jour yenn jour yi di am am nañ temps dañuy tàgg suñu saaj dem bëri ji parce que suñu kësu loolu lañ def ci ñun loolu lañu ñu loolu la ñu jël def ko ci ñun parce que suñ pour ñun bon benn semaine boo bëreewul rek perte nga loolu lañ mës a def ci ñu nekk ay xale teel a am doole teel a am tur nag ñu xam ñu foo toll tey boo duggee yaraax tey boo nee booy yaraax wala nga ne Pape Diop lay laajte da lay ni bu kër loolu doy na sant yàlla tey liggéey bii ma am nii di ko liggéey làmb moo ma ko may. làmb moo ko may parce que sama grand bu baax moo ma boole ak Moussa bu Dakar dem dikk muy euh, grand Ousmane Wade dale yàgg ma bëgg yàgg ma topp ci la ay photom samay photo lépp taf ko ci ay néegam soxnaam noonu di ko gërëm bu baax. yaraax daal man aw ma seen fay dañ ma bëgg mais làmb mënul ñàkk da ngay nekk ci ay dog-dog man ndog-ndog laa ko mën a jàppee parce que ay xale lañ dara weesuwul ci ñun. man na mënu ko jàppee ndog-ndog parce que ñaari défaite nga am te nombre de victoire yi bari na loolu ku bëre sept combats am deux défaites xam nga ni macha allah kooku champion mais li ma jaaxal mooy sa gëj a bëre sa gëj a bëre ban année nga mujjee bëre kan nga mujjee bëre. man dijee laa mujjee bëreel bi may bëree stade bu Ngor laa mujjee bon bi ma ci jógee nag wax dëgg yàlla xam nga duñ ne victoire jàmbur kenn du ko salteel victoire euh, di ko nuyu de passage. <laughs> dégg di jërë ngay waatee fi toll nii <laughs> non du kees la. di champion la. tey bëri nañ tey yàlla dogal mu am ci man dam mais dama ko koy ñaanal yàlla na ko jéeg mu nekk champion mais aussi bi ma ci jógee yàlla dafa dogal ma jëlee ci ay tolof tolof yu métti parce que làmb dafa am lu mu àndal fi lañ ko fekk nag fi lañ koy bàyyi man dama teel a dugg ci làmb am doole am fugu pour man lu taxaw sama kanam maa ko man des fois da ngay dem sax utali ma musique ma ñëw ma jël ko teg ko ne dama ko yàgg def yàlla di ma ci may ay ndam aussi mais xam nga bës booy daanu du bés boo war a daan ma ñëw di ja daan ma. te avant combat bi reporté nañ combat bi trois fois ma jëlee ci ay feebar yu métti ñàkk ci xaalis bu dul jeex te combat boobu trois cent mille francs la ñu si fayoon Bamba moo ko tëggoon. trois cent mille trois cent mille lañ ñu fayoon ci combat bi. mu doon parce que combat bi ma ko jëloon malgré man mu jóg ci victoire jox ma combat boobu. boobu DJ fële na woon ma fële ñu war a bëre mais li ñu fay baaxul mais man dama ne parce que làmb des fois da am fooy toll du xaalis bi mais il faut nga wane sa bopp. jël combat ba boobu ana Fallou Fallou moom moo jël trois cent mille. <laughs> Fallou mooy loolu. du Fallou. du Fallou parce que Fallou même bu doon Fallou la cinquante mille bu ñu ma ko fayee da koy jël ñu bëri parce que moom Fallou li mu bëggoon mooy ma génn nit ñu xam ma Fallou loolu rek moo ko soxaloon du woon xaalis bi du woon dara mais Fall li doon wut moom mooy tey dañu xam booy yaraax parce que moom dafa may tiitaroo léppam man la. loolu moom xam naa ci dara di ma tiitaroo ba xam ko Fallou addunaam lépp man la man man pap man mii. kon tey 300000 francs la ñu fay ci combat boobu di ko reporter presque at heure boo defaree ba mu baax rek war a dem bëre ñu ne waat lii ak li ak lii ak ñu pusaat combat bi mais nag damay gëm ni rek lu war a am la. parce que depuis nga bëree DJ ba léegi kon bërewaatoo promoteur yi kenn contacté wu la pour nga bëri. contacté nañ ma fi man ñu bëri même Sam Sam production bëggoon na fi tëgg sama combat mais tey jii yàlla day dogal yooyu yëpp fois day xaw a yeexu mooy li ma la wax des fois di nga dugg ci combat souvent li muy yàq ci say affaire sax day bëri. day bëri ay jàngat lay doon rek da nga xam bu baax fi ngay taxaw xam li nga war a def. làmb rek làmb la. tey dañ ciy gën a yeew loo ci gën a yàgg di ci gën a am expérience souvent boo nekkee booy nekk ci làmb. da ngay yaakaar ni am na sax benn niveau bi mu yegg te pourtant du foofu yeggu fa mais nag pour nga xam ko il faut nga am ci benn expérience mooy li ma la man na yàgg maa ngi ciy bëgg a yàgg 2004 boobu maa nekk lu ndaw nekk ñoom grand yi di ma tettee ñi ma fekk ndooloon ci écurie bi ñëpp nag ñëpp ñëpp tukki nañ di leen ñaanal yàlla defal leen fa jàmm tey écurie bi yaakaar naa ñi ma fi nekkal ñëpp yaakaar naa ñoom a mag nekk suma ay morom mais man maa leen jiitu ci écurie bi di leen ñaanal yàlla li ci seen kanam daax li ci seen ginnaaw sama waa écrit di leen ñaanal yàlla bu baax parce que Moussa Ndoye bëgg na ma Loso bëgg na ma Boy Naar noonu sama man daal damay sant gars yi quoi dama kontaan jëlee mais lii problème bi dañoo bëgg ñëw tuuti ci écurie bi ñu dellu si ci écurie bi parce que écurie yaraax boo fa boo fa demee ay sampion ñu ngi fa Fuloo Soo nekk boo yaraax nekk fa caato yaraax nekk fa Moussa Ndoye ne fa ak yeneen champion mais lan mooy seen problème ba làmb yaraax fi mu toll nii mënoo leen ko téye ci seen loxo te macha allah képp ku fa génn rek doo laajte ana mbër mi. waaw loolu dinaa sawar tontu parce que yaraax yaa xam naa ni bokk naa ci mbëri yi fa njëkk a génn ci sama génération bokk naa ci. ñi fa nekk ji bëri ñëpp bokk naa ci man ñi fa njëkk a génn bokk naa ci parce que yaraax rëyul benn dëkk bu ndaw la boo xoolee yaraax kipp moo fi nekk kipp côté parc an yaraax kipp am na ñoom ñoom Africa ñoo fa nekk ñoom fii abu gaay yooyu maa leen nuyu de passage commencé Kappa en trois ñëw magasin loolu mooy yaraax Daaru Salaam ñooñu ñëpp benn lañ mais tey ji boo xoolee yaakaar naa li tax ñun mënuñu avancer ci ñun bokk yaakaar naa dañu doonul benn rusuma di ko ah. mbooloo mooy doole ñun Pikine moo ñu moo ñu gën a yaatu et pourtant dañu booloo kat sax boo dee fecc dañ lay dooleel nga dem sa yoon jéejawaay noonu te ngay jeg noonu mais yaraax pourquoi pas ñun ñu nekk dëkk bu ndaw mënuñu booloo xam nga jàppalante parce que tey jii ñoom ñu génn dem jënd tisetu Balla Gaye moo leen di gën a ñu jënd ticket tisetu Moussa Ndoye bi dëkk yaraax ba pare toog di la diingat sa ginnaaw duñ la wax dara boo rombee quoi boo rombee dinañ la tàccu dinañ la ree mais boo rombee ñu dingat la yaraax philosophie boobu moom la ñuy doxee te loolu yaakaar naa lu ñaaw la kuy wàlliyaan sa dëkk dafa tëggul tey waa yaraax bu ñu tegoon loxo bu ndaw ñu génn ñun dépassé nañ fii parce que ñun lii dañ ci nekk di jàpp rek mais ñun suñu muuniñ ci làmb la nekk jëli ñun dañu war a am ci làmb parce que dañu xam ni am nañ capacité bi am nañ bëgg-bëgg fit baa ngi fi fi bëre baa ngi fi ñu ngi ciy bëgg a yàgg la mi ngi bëgg a yàgg dañ ñu see tàggat dañ koo xam amul lu ci nit mën a def ñun ba jaaxal ñu amul. kon tey lu ñu mën a wax moom mooy que ni waaye Yarax ñoo war a delloo seen xel ñëw jàppale seen ay doom souvent dañ lay seetaan dañ lay seetaan ci yu bëree bëree bëree bëri mën nañ mën nga romb nag ñu wax mais boo rombee ñu diingat la waaw mais nag di waxaat mbër yi encore une fois nañu gën a jàpp nañu jàpp rek te xam ne bu yoon jeexul waaxusul du jeex. mbër bu dëkk ci dëkkuwaay. tey boo rombee ñu diŋat des fois nga romb ñu wax ci suuf yu mel noonu ban comportement nga war a wane envers ak ñi nga dëkkal. boo rombee ñu diŋat boo rombee ñu saaga wala ñu wax kooku da nga war a fenetal parce que ñooñu dañ lay yokk jom pour man lu lay encouragé la tey jii boo rombee mbër nga romb nit mu wëral ni yow mii am na lu ne ci yow nga romb nit mooy la sa waaye doo dara doo dërëm loolu dala war a encouragé pour man loolu lu mu war a yokk ci yow la lu mu war a defar ci yow la. parce que tey jii kooku boo tëddee xalaat ko sax war ngaa mën a jug dem entraîner ji moo lay yokk doole parce que ku lay dingaat moom mooy moo lay defar sa noon moo lay defar man pour man ko mais ki ngay romb chaque jour ma naan la champion yaa fi ne nangam ak kooku pour man sax bon da lay yokk fit nii rek mais defaralu la ku wet nag xam sa bopp quoi ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ku ne xam nga kilo la mën da ko dul nangu man lam maa ngi ciy bëgg a mbër yëpp dañ ma jox cër parce que yàgg nañ ma seetaan defaguma dara ci làmb nag mais xañ na peut-être bokk nañu ay milieu di entraîner bokk daje nañ ay drapeau di bëre ay mbapat ak yooyu parce que ñun dañu foo ci làmb dañ ci yaru dañ ñu ci tàggat ñu xam ko amul lu ci nit mën a wax nag te duñ ko mën nga wax sax ñu bàyyi la ci biir te dañuy xam bu baax li ngay wax kon ñun làmb dafa nekk su ñun ku ñu teg loxo bu ndaw ñu dem parce que bëri ko ci mbartal lañ. waaw léegi ñu dugg si ci làmb simple yi mbapat yi daan nga ci compétiral ñoo xamante ne da leen gis ci làmb ji fi mu toll ñuy toj. bon mbapat mbapat yi ñi ma ci daan compétiral bon ñoom xanaa ñoom Mamadi Ndiaye la ñoom euh, Mbisaan ñoom euh, Ibou Senghor numéro 2 waaw à part ñooñu grand yi fi ñoom Malal Ndiaye fi nekkoon ñoom usine doole ñoo ñëpp maa ñoom ñoo bokkoon di di bërendoo mbapat man dama nekkoon xale di bëre ñoom. gis naa dajeeg Mamadi Ndiaye. Mamadi bëri na ñaari yoon benn bi ñu match nul benn bi ma daan ko. barki yonent yàlla Muhammad laajal fàllu ci tele laa nekk di wax du ma ko bëri na ñaari yoon terrain gaal gi du ma ko du ma parce que bërikat la champion la nit ku baax la bëri nañu bu ma bu ma seetaanee dina xam bu baax li may wax. bëri nañ deux fois benn bi man maa ko daan benn bi dañoo tëw. bisaan mus ngeen a bëri. bisaan musuñu bëri Malal Ndiaye bëri nañu mu daan ma mbapat usine doole bëri nañ benn bi dañoo tëw benn bi moom moo ma daan. yàgg boobu maay nekk xale. mais lamb mooy la ma la wax rek loo ci gën a nekk di gën a am expérience tey jii. léegi ñi lay seetaan te xamuñu ni boo Yaraax ban catégorie la bokk fi mu toll nii boo ma doon wax sa adversaire ci lamb mën nga ma limal cinq personnes yoo xam ne kuñ la ci jox avance am nga jël. waaw xam nga tey ji mooy li bëri di wax rek. liñ naan koo fi lim mu ne da nga koy préparé wala yooyu man bañu ma. nit moom munoo préparé man bu yeboo ñu jàpp ne dix personnes dama leen di préparé mais tey jii dama bokk ci làmb man ñoo xamante ni si man war naa mën a bëri ñoom tey jii ay euh, ñoo xam ne ay Moussa Balla. Moussa Balla Gueye men waaw war nañ mën a bëre. Moussa Balla Gueye bu dóor dóoraat. non déggoo ma de ragaluma loolu xam nga. moom nga xam ne dama ne ko bàyyi ma kii rek. tudd beneen mbër rek bu karma di wër. non xam na ma sa koñ la dëkk. Moussa baala war nañ mën a bëre ñoo ñëpp suma ay boy lañ ay double moteur yi. no non deful lu ma deful ci làmb. xañ na làmb dafay am jàppale ba nga xamante ni si mën nga année bi mën nga ci bëre deux wala trois fois souvent ñun amuñu loolu amuñu benn autorité boo xam ne moo nekk yaraax moo ñu ci mën a génneeg yooyu xam nga ñoo ñëpp samay adversaire lañ tey jii bari na bari na boo yoo xam ne ñu ngi ci làmb fi mu nekk nii di ràññee tey jii defuñu fi loo xamante ni man defuma ko mais xam nga làmb dama ne la am na benn moment booy toog bëree woo rek lay fàtte. bari na tey jii <laughs> bari nañ bari nañ tey jii ñoo xamante ni si tey maa ngi ñoom war nañ mën a bëree pourquoi pas. mel ni gaynde mer la fanaan non xam nga tey jii balaa ñoo gisaat boo Yaraax yàlla may ko combat nañ gis beneen Boy Yaraax gis tey jii lu garaaw ci làmb parce que tey jii dama toog diir boo xam bëree ma mais diir bi ma toog yëpp maa ngi defar sama bopp maa ngi jàng lu bari ci làmb. mais est-ce que loolu du tax boo ñëwee perte repère. Hmm, non parce que xamul tax tey jii déjà man balaa may fi mu nekk nii sax balaa may bëriwaat arène. tey ji bu yàlla dogaloon ma am combat arène ci diggante bu gàtt bu ma duggee benn yoon mbapat mën naa jëlaat sama sama repère ci làmb parce que lu yàgg ci man la luy nelaw laay yee rek li nga xam day nelaw ci man moom laay yeewaat rek ay mu jóg ñu loolu mën nañ cee nekk pendant des années toog noppalu bàyyi off mais bu ñu ñëwaatee dañuy bokk xam nga déjà dañ loo bàyyi mu bàyyi la mais nit ki tamit dafa am loo xam dafay nekk ci yow soo ko bëggee rek dafay ñëw ci yow da koy gëm xam li nga yor lan la yàlla jàppale la nga dem. waaw man làmb fu mu toll nii ñu ngi jo ñu ngi doon jooy làmb mu ngi daanoog mu ngi fay mais yàlla suñu borom mu ngi suturaal làmb fi mu toll nii daa mel ni gis nañ yeneen mbooloo moo xamante ni dañoo jug pour jàppale làmb jug pour du duggaat ci làmb waaw barki démb gis nañ ki nga xamante ne mooy suñu grand Pape Sarr bokk ci benn structure boo xamante ni dafa tëgg ñaari combat nga ku ci mel ni booy ki nga xamante ni mooy mobile bu Grand Yoff mu jël ko boole kook euh, nu mu tuddati. Bour Sine Bour Sine bu Bawol. bu Bawol nga xam ni combat yu neex la. Euh, maa ngi dégg ci ñu naan ma combat Garga ak ki nga xamante ni mooy euh, ki dëkk waaye site bi. Maama Lamine Garga 2 Maama Lamine nga xamante ne loolu lamb ju neex la uh-huh. suñu papa Gaston dugg si na ci làmb uh-huh. ñu ngi dégg com combat yi nga xamante ne bëgg na ko tur tëgg ci tournoi en tant que mbër nan nga gisee loolu waaw loolu dooy na sant yàlla loolu daf ñuy yokk fit ñun mbër daf ñuy encouragé parce que tey jii laamu toogoon nañ benn moment kuy mbër rek ku lu mbër tiitoon nga parce que lii musul am da ngay gis ni premier janvier làmb da daan am 4 avril làmb da daan am férié yi sax yak jour ki sax làmb da daan am nga gis ni année yi boo xoolee année blanche la amul benn grand combat bu ñu fi bëree déggoo sax benn combat bu xaw a ay Ama Baldé yooyu yëpp amuñu combat xam nga champion la maa ngi koy nuyuwaale ku baax la xam nga làmb tey bu ñu déggee ñu ngi décroché ay combat di di am ku ne sax mu ngi dox combat booy Niang ak Balla Gaye 2 yooyu yëpp yokkute làmb la di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla sottil la tey bu ñu sañoon ñun chaque année ñu bëre deux wala trois combats mais di ñaan yàlla sponsor yi ñu ñëwaat te tamit dafa am lu ma metti benn affaire boo xam ne mu ngi am ci mbapat man pour man loolu dafa gën a rey mbapat balaa ngay bëre dangay joxe 1000 francs yi jëm fan 1000 francs yi bon xaw ma CNG lañ koy yóbbu je sais pas parce que ñun mosuñu min loolu ñun parce que mënoo dagg sa licence ba pare jënd sa vignette ñu daggal la sa licence balaa ngay bëri nga joxe 1000 francs man gëw ma loolu. dañ bàyyi mbëri ñu firi mënoo dem entraîner jël sa xaalis dagg sa licence en plus demaat di bëri ji di cotiser waat. ci dem ngemb xamante ni wóoru la ba xam di nga ko jël. ci vois fay transport ak ñi ngay ànd. ñëwaat dagg 1000 francs ba pare nga ñëw ñu fay la 1000 gars yi nañu xoolaat làmb détail yooyu ñuy xeeb yëpp dafay yàq lu bari ci làmb nan ñu jàppalee tey jii ñun làmb la ñu am ay xale lañ dafa nekk loo xam ne suñu dara la ne dañ ko bëgg donte ñu ngi jàpp ci leneen di ci fortaatu mais ñun làmb suñu yëf la na ci gars yi jàpp punkal yi nekk suñu kaw ñoom président Alioune Sarr ñu ne ci làmb ñëpp nañ ñu jàppalee te xam ne làmb tey bu deewee rek dina Sénégal dina bari loo xam dina sooxee booy am nañ doole ay punkal lañ dañuy génn sàcc mbaa ñu agressé ji mënuñoo toog xaar xam di waxaat tamit di ñaan yàlla nañ ñu jàppale nañ jàppale làmb làmb dafa bëri facteur de développement la dafa bari loo xamante ni si tey ji te koy defar ci temps bi dafa bëri lu muy liggéey ci réew mi nañu jàppaat ci làmb te xam ne làmb lu war a dem la sport la boo xam ne ñun ñoo ko moom war ñu ko yàq nañ ñu encouragé gën a jàppale xale yi di gërëm mbër yëpp nag ku lu mbër koo xam ne bëgg nga làmb développé xaw ma nag keneen waaw. parce sama papa Max Mbargane da doon wax naan lépp lu ma waaye wax ci àdduna mun naa laa baal waaye làmb moom ku ko laal rek ma laal la koo munti doon foo munti bokk parce que amuñu lu dul làmb sport bépp bu ñu mën di jéggaani sport bu loo boo xamante ni moomuñu ko waaye làmb suñu sport national la képp ku ñëw nga wan ko lépp lu muy gis ci làmb xam nga ne boo yaraax bu wàcc arène nationale <laughs> rango senghor yi takk jaaj yi toj nen bi wala bu sottee ko soow bi nga xamante ne macha allah kii gone gone <laughs> waaw parce que xam nga làmb mooy li rek làmb moom sa garab la ci kaw lay fekkente bari na grand yoo xam ne ñun fi lañ leen fekkoon génn nañ tey bàyyi ñu tey ëllëg suñu ay rakk ñooy ñëw fekk ñu fi ñu bàyyi leen fi dañ leen di teg ci dem. tey jii mooy li nga wax rek tey ku ci nekk am na loo xamante ne si moo la neex ci Boy Yaraax bu Boy Yaraax tuusee pare nga yow nga bu Boy Yaraax dugg seem doyal nga bu bëree doyal nga ku ci ne rek ak li lay yëkkati ci doomu aadama bi moo tax ñun amuñu fay doomu aadama yi dañuy bëggee dañuy tey mooy li ma lax wax liggéey bii may liggéey di ci suturlu ak sama njaboot lamb moom ma ko may ndax bu du woon làmb xañ na du ñu ma xam ba ma mën a am liggéey bii bis gërëm sama directeur Moussa Diop jàppale na ma bu baax sama grand ki ma yóbbu ci moom Ousmane Wade Dale yàgg sonn ci man di ñaanal ko yàlla yàlla li muy yóotu ci yëpp yàlla defal ko ko. parce que kooku yaakaar naa ne Ousmane Wade Dale bés bu yàlla defee mu am li mu bëgg rek yaraax ñun dootuñu sonn parce que grand la buy sonn ci mbëru yaraax yi. cat ba cat nag xoolul écurie bi laa nekk wala écurie bi laa ne moom yaraax a ko ñor booy yëpp nag lay jàppale ñëpp waaw di ko sant bu baax di ko gërëm waaw. Euh, làmb euh, boo yaraax am nga ci idole koo xamante ne bu dugg see ci làmb nga gis ko rek xam ne kii da nga ciy gis sa waaw làmb am naa ci idol tey jii man Balla Gaye 2 bokk na ci mbër yi nga xamante ni si su ma ko gisee mu dugg si dafa am lu muy def ci man day am lu muy def ci man parce que mbër la boo xamante ni dafa am fugg lu mu ñàkk tey ci làmb fuggam moo ko xañ. parce que yaakaar na ni ku taxaw ci kanamam moo la mën mbër la boo xamante ni si du bàyyi du bàyyi champion la sunu grand la ñu ngi koy remercier di ko waaw du ko ñaanal yàlla li des ci carrière mu yegale ko jàmm. tey bu ñu toogee ba ñuy gis sax dinaan ki nangam ak nangam ku ci la bokk jàlloo parce que làmb dafa am ñu bari ñu ciy jàpp làmb dafa njaboot. yow bis ñëw na nga xalaat ngemb yaag Balla Gaye nekk ci digg géew. bien sûr laal ko ba mu yëm. naa ko. parce que tey jii Balla ku ko ne woon tey jii di nga bés dina ñëw nga ngemb laale ak Moustapha Gueye danaa la noom loolu mënul nekk mais man gëm naa ne bés a ngi ñëw ci bës yi man damay takk sama ngemb ñu ne Balla Gaye ak Boy Yaraax gëm naa loolu ma duy stade ba mu fees maa ngi koy li may wax nii barki yonent yàlla Muhammad lu ma gëm la te bés a ngi ñëw ci bës yi bu yàlla dogalee ñun ñëpp suñu bakkan des fi rek mën naa am waaw. ñu lay jëfal bu baax a baax a baax ci sa disponibilité ma ñëw fekk la fi nga xamante ne fi ngay dóoree waar wane nga ni mbër dafa war a am métier mais gàddu naa say waxtu di la jëfal bu baax a baax a baax di siyaar sama xarit ba Fallou nga xamante ne macha allah kenn la ci yow ku la bëgg la ku lay safoo la ku lay ndamoo la sëñ Fallou moo koy ñaanal yàlla suñu borom may ko gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ni séentu na ko rek yàlla suñu borom dafa ko ci lu kawe njort. vraiment li nga wax nii dafa am solo parce que Fallou mi ngay wax mooy li nga wax rek. Fallou comme li ma la wax bi ñuy commencé Fallou dafa sori ci man dafa bàyyi ay mbokkam bàyyi ay waa këram ñëw nekk ak man sama kër moo may yee fajar 4 heures du matin 3 heures 45 lañ doon jóg moo may jóg yee ñu jóg mu yóbbu ma maaro ñu dem dóor maa moom ba 6 heures ak sama gaay yi ñoom Moussa Faye ak ñoom Mamadou sama gaay yëpp Modou Modou Modou Modou sama gaay yi Modou Sandaga Modou iPhone sama gaay ñu ñoo doon ànd di yeewu fajar gi di dem bëri di dem entraîné ji kon Fallou yaakaar naa li mu def ci man dafa bari di ma yóbbu mbapat di ma ñemeloo di ma yokk fit na ma nangam ak nangam ngay def te boo ko defee dañ ci jën te dama koy def jéen ci kon Fallou mënu ma ko fay di ko sant di ko ñaanal yàlla lépp lu mu séntu fee mu nekk ak feneen ci àddunaam yàlla na kawen njortam di ko ñaanal yàlla mu gudd fan ak wér di gërëm sama gaay di gërëm sama gaay aussi waa waa waa banlieue transit sama gaay fii tran ak gaay yëpp ay transitaire lañ mais dama leen di sant même soxna yi ngay gis ak ñi ñëpp ay transitaire lañ dama leen di sant di leen gërëm parce que fii la ñu ne maa ñoom bokkuñu boîte bi ñuy liggéey man dem dikk laa nekk di liggéey ay transitaire lañ mais bu ma ñëwee dañ may yaatal dañ may yaatal ba dimanche passé laa defoon benn yendu sama kër ñoom ñi ñëpp laa invité woon sama gaale ñoom ñi ñëpp xam nga loolu jàmm moo ko lal rek fii dama fi ñëw ñoom ñëpp ñu ubbil ma déjà man 15 heures laa war a commencer liggéey mais damay yàkkamtee agsi fii ndax ñoom 15 heures laa war a ñëw fii mais chaque jour boo xoolee heure bi laay ñëw ñëw toog ak ñoom plan ak ñoom ba yenn heure yi parce que ñoom souvent damay ñëw sax kaar yi génnandoo ñoom dañuy génn nga gis transitaire yëpp génn ku ne jàpp si liggéey bi fii ñoom ñëpp muy Xalil Mimi Ibrahima gars yëpp ñoom pabis sama gars yi nekk fii yëpp dañ ciy jàpp dañ ciy jàpp bu baax di leen sant bu baax di sant sama waa kër nag di sant sama soxna <laughs> maa ngi gërëm sama jabar aussi ah di ko sant parce que maram madame Diop Awa maa ngi koy sant nekk na koo xamante ni si aussi daf may poussé ci làmb di ma defal yu mool su ma demee terrain ñëw mu toppatoo ma di ma defal ay xéwal di ma encouragé aussi di ma gëmloo ni à chaque fois rek lépp dina baax. moom loolu may gëmloo di ma gëmloo ni à chaque fois lépp ay baax bu neexee yàlla tout le temps ñooñu moo leen xalaatee ak sama papa di ko ñaanal yàlla guddal fanam tout le temps ñooñu dañ may encouragé ci làmb bari na mbër yoo xam seen papa bëggul ñu bëre man sama papa à chaque fois dafa may li may gëmloo papa dama nga entraîné ji damal entraîné yàgg-yàgg dafay ñëw boo defee effort bu ndaw rek li nga bëgg di ko jot kon dama koy sant di ko gërëm di ñaanal sama yaay fa mu tëdd yàlla na ko yàlla defal mu gënal ko fi mu jógee sama yaay ji fi nekk itam yàlla guddal fanam sama ay rak sama ay doomu baay sama sœur sama grande sœur sama xarit Ndeye Ndiaye di ko bëggee di gërëm waa Yaraax yëpp di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp ba ñu fekkee waat ko tey di defaat ay yeneen émission ba ñëw sama koñ fi ñu dëkk mu gën a yaatu xam mu demee neneen dina gën a dina gën yaatu daal pour man quoi incha allah parce que tey lii dafa rëy ci man de jëlee lii barki alxuraan lii dafa rëy ci man tey fi may liggéeyee yaay tele bi ma fi njëkk a fekk jël ma kon lii lu may sante yàlla la di ko gërëme sunu borom xaw ma lu ci yàlla na mu nag mais yàlla bu mu fi yem man loolu laay ñaan yàlla waa merci beaucoup encore jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb boo yaraax la gis nga génne na lépp loo xamante ni bokkoon na ci làmb wax na li nga xamante ni war nañ koo mën a changer ci làmb boo demee lutte traditionnelle mbër yi nga xamante ni dañuy bindu te ku bindu joxe ñaat téeméer wax na ci tey wax wolof daf ne mbaam gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk te ki wax lépp lu mu wax rek da ngay xam ne kii maîtriser na li muy wax champion yi nga xamante ni nee na bëgg na ñu bëre ñoom damay woo ay promoteur rek ñu ñëw ku mel ni Fallou Ndiaye borom Bawol production